maître Adama Diouf maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay jaajëfal madame Moreau di jaajëfal waa Rewmi FM ak ñëpp ñu leen déglu ci biir réew ak ci bitim réew. maître Adama Diouf ci 17 juillet bi la ci la ñuy màggal bës bu ñu jagleel wàllum justice internationale lan mooy importance su bës bi en tant que juriste. waaw importance su bés bi nga xam ñu ngi koy jagleel cour pénale internationale boo xoolee mi ngi soog am ñaar fukki at ak archipel parce que depuis 2002 la lu am solo la ci askan bi parce que dafa nekk loo xam ne dana dool delloo af ak yelleef ñi nga xam ne ñooy néedu doole yi ñi nga xam ne ñu leen di nox donc si ay biir réew ak bitim réew donc yaakaar naa ne bés yi loolu lañ ko jagleel jéemoo xool nunu fexe ba donc këru attakaay boobu tëdd na ñaaxanaa yi donc di atte bépp ñaawte boo xamee mi ngi am si donc biir réewam bitim réew Euh, tey jii euh, suñu waxee euh, cour justice internationale yan ñooy différentes cours yi nga xamante ni moo leen di firndeel parce que bu ñu waxee justice internationale dañuy xaar dañuy xalaat plutôt cour pénale internationale est-ce que benn cour boobu kese moo fi nekk wala am na yeneen. waaw cour pénale internationale boobu moom lañ reconnaître comme mu nekk benn cour boo xam ne nii àdduna yëpp lay dox maanaam warul def deux poids deux ndax gën a nag am na yeneen yoo xam ne nii si réew mu nekk xëy na ñoom am nañ seen ëttukaayu àtte loo xam ne si yëpp ñaaw teeg waaye cour pénal boobu bi nga toogee ba nga xam ñoom teg nañ ko 2002 ci statut Rome 98 bii bi donc dafa am vocation universelle am am xàjjeeg amul set maanaam ñëpp war a boole lépp koo xam ne nga ñaaw teeg rek ñu yóbbu la. tey jii lan moo war a nekk euh, procédure bi pour ñu poursuivre benn nit ca cour pénal internationale par exemple. waaw poursuite bi li may wax avocat bi mën na ko def foo xam ne nii tey gis nañ ay victime ñoo xam ne nii tey néewoon nañ leen doole sañ faan nañ leen seen àq ak seen yelleef donc avocat bi mën na porter dossier bi saisir procureur pour penal international léegi nag procureur nag moom mooy jéem xool euh, s'il lieu donc d'ouvrir donc une enquête donc judiciaire jéem a lancer un mandat d'arrêt international donc mais dans un premier temps il faut que ñu def ay enquête ba pare ba am kii leer na ñii war na leen topp wala war na leen topp. Hmm. saa suñu waxee crime contre l'humanité rek xel yëpp dafay dem ci cour pénale internationale euh, loolu loo si mën a tontu. waaw parce que mooy ëttukaay boo xam nii moo gën a koy looloo tax xel yëpp dem ko parce que gis na ne li xew ci eh, juridiction yi am ci biir réew yi ñoom léeg-léeg xaw a euh, doxee eh, dañuy xaw a jàng surtout fekkee ki ni topp tey dafa am ndomba tànk wala dara day xaw a doy waar moo tax xel yépp di jàpp cour pénal international comme yaakaar ne mooy cour boo xam ne dina tëddee njaxanaay moo tax xel yi di ko. mais souvent crédibilité am aussi euh, pose dafay poser problème parce que dañuy gis ni nit ñi ñenn ñi au contraire di ko ŋàññ parce que dañu naan africain yi rek la ñu fay faral di juger est-ce que crédible na voilà. waaw crédible na waane boo xoolee ne ñi ko war a dooleel mooy cent quatre-vingt-treize états yi nga xam ne ñoom ñoo ko sëf mais cent vingt-trois rek donc ñoom ñoo bañ a ratifié donc bañ a reconnaître Cour pénale internationale bañ a ratifié comment encore donc euh, le statut mais boo xoolee dañuy dafa mel ne Cour pénale aussi léeg-léeg day topp ñi bàyyi ñi parce que loolu mën nañ ko comprendre parce que procureur CPI bi dafa nekk avocat la avocat société bi avocat défense la damay jox exemple yi nga xam ne nii mi nga xew donc fii donc si Darfour wala Ukraine mais amul benn dirigeant bu ñu ko topp alors que li nga xam ne nii tey donc mi ngi xew Ukraine automatiquement gis nga le procureur ni mu kii lancé un mandat d'arrêt contre Poutine donc nekk na loo xam ne nii dana xaw a jaaxal day nekk justice boo xam ne nii accès à deux te dafa war a yemale ñëpp muy ku ñu xonq ak ku ñu képp koo xam ne ni dafa ñaaw te si biir réew ak bitim réew kooku cour pénal procureur am na sañ-sañ tijji un mandat d'arrêt international Euh, doon nañ fi dégg ñuy wax ni dañu war a yóbbu président Macky Sall ci CPI avocat français bi di Juan Branco euh, doon gérer dossier yu Ousmane Sonko wax ni dafay topp euh, ki nga xam ne mooy président Sall ci cour pénale internationale jàpp nga ni loolu war na mën a am aboutissement. waaw war na mën a am aboutissement parce que dafa nekk euh, ko xam ne ni moom li si li muy dox mooy défendre ak ak yelleefu doomu aadama comme bi mu ñëwee Sénégal gis na ay victimes yu constitué saisir ko moom en tant que avocat si wàllu liggéey mën na déposer une plainte au niveau du procureur de la CPI donc euh, procureur na li si des moom moo koy def jéemoo xool yan enquête la woon war a mën a ñëw def biir Sénégal suñu defee seen enquête ba pare ndax nii lancé mandat daré international contre ex-président bi ou pas mais loolu yaak am na yaakaar ne war na mën a aboutir parce que boo xoolee ñaaw teef yi amoon yëpp aussi reñam donc kooku waruñu bàyyi les donc impunis kooku ñu topp. naka nga gisee euh, coow li nga xam ne moo am si diggante président dafa war a génn ci conseil euh, supérieur de la magistrature waaw wala déet yow en tant que acteur de la justice euh, lan mooy si sa gis-gis est-ce que da ngay d'accord président génn wala mu des fa. waaw loolu moo doon sunu mbébét. parce que loolu yàgg nañ ko jooy ne président ak premier ministre ministre de la justice yëpp dañu war a génn si euh, kuréel googu su ko defee ñi nga xam ne ñoo comme ay magistrat doxal ko seen bopp. wane gis nañ ne président Bassirou donc Diomaye Faye si discours am ni mu pareegul pour génn conseil supérieur de la magistrature wane même bu ko génnul sax war na mën pouvoir yi nga xam ne am nga ko donc ba mu leer na tey lépp luñ fay na sa kot ci rek loolu magistrat donc mhm. ñun daal si gis-gis boobu lañ euh, bu ñuy wax génn ko président ci conseil supérieur de la magistrature euh, la question fondamentale moom mooy justice sénégalaise nekk une justice indépendante euh, tëddee njaaxaanaay kenn bañ ko contrôler pour yow lan la ñu mën a def pour justice sénégalaise mën a moom boppam demal boppam waaw justice bi yàgg na moom boppam elle est toujours indépendante man toujours dama ko yàgg wax parce que déjà c'est consacré par la constitution les pouvoirs da leen séparé xam nga indépendance yi nit ki la d'abord maanaam magistrat bu ne moo war a xool diggante ma boromam parce que moom it dafa waat doxal yoon li ko sant lépp lu yoon bu ko wàcc loolu mooy njëkk sur le plan personnel sur le plan fonctionnel maanaam la nga xam ne moom nga waat ba liggéey si kon xoolal sa fonction lam la wax ak loi bi lam la wax nga appliquer ko parce que foofu fonction mooy premier ci grade bi boo xool ni kii suma supérieur la damay xool lii mooy sama fonction lii la war a def maanaam magistrat bu ne mu war a jël indépendance am ça ne se donc loolu mooy indépendance su justice tant que loolu amul lu man di kii président na génn conseil supérieur yooyu yëpp tant que magistrat bi jëlul indépendance su boppam sur le plan personnel sur le plan fonctionnel toujours problème yi day soxla. Mhm. Euh, beneen ponk aussi soxal actualité politique bi naka nga gisee sortie bu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye doon waxtaan ak taskatu xabaar yi ci ponk yi nga xam ne aussi soxal na Sénégalais yi. waaw dañ ko rafetlu dañ ko lu parce que euh, njiitam réew aussi war na toujours lu loo xamee ni xew na rek mu informer askanam gis na ne moom mi ngi communiquer ci lënt-lënt yu bari yu amoon loolu lu nuy rafetlu la wax dëgg yàlla waaye nag askan bi li muy gën a xaar mooy ñu teel gaawantu faj seen ay souffrance parce que it yàgg na te askan bi ñu ngi xaar boobu léegi donc jéem a agir teg ay plan yoo xam ne ni tey. ëllëg si biir askan bi danañ si ñoom it commencé gis seen bopp waaye nag communication bi baax na maanaam di leeral si lu bëri loo xam ne amoon na lënt lënt loolu ñun de dañ koy rafetlu bu baax mais di leen soññ ne leen nañu teg nag ay jéego askan bi commencé di gis seen bopp donc si li nga xam ne nii ñu ngi leen koy liggéeyal Mhm. Euh, beneen ponk aussi euh, naka nga gisee euh, attaque bi nga xam ne actuellement opposition bi mi ngi koy def wala riposte opposition bi contre le président Diomaye gis nga génnu Bougane Gueye Dany après benn Bokk Yaakaar après Thierno Bocoum naka nga gisee mbir mi. waaw ñooñu doon nekk seen rôle xam nga bañ ko ba ne donc opposition ñoom aussi yoon dafa lu mu leen may ñu koy doxal. parce que ñoom it du ne toog fekk ñoom it am na doxu seetlu si li nga xamee nii donc xëj na seen gis-gis waroon na ak gis-gisu président ñoom ñoom ñu wax ko comme mais si anam bi mu gën a rafetee donc ñu seen rôle la nekk ba léegi donc euh, loolu ñuy wax donc yoon lu leen may la seen gis-gis la ci tolluwaayu réew bi ñoom ñu génn wax ko parce que foofu rek la mën a kon euh, maître Adama Diouf ñu ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi lay fay madame Moreau di nuyu waa Rewmi FM ak euh, ñi leen di déglu nii. voilà di la jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi di fàttali ni maître Amadou Diouf consultant nga en droit merci jërëjëf.